sëriñ Bachiru Mbàkke moom Cheikhul Xadim dafa wax ci téereem bii di Minanul Baaxil Xadim ne weeru baraxlu de saa bu yegsiwaat sëriñ bi daana bari lool lu muy waar nit ñi ak di leen soññ ci ñu wattandiku lépp loo xam ne ay caaxaan ak naka sudul noonu daa leen soññ ci ñu waajal weeru koor daawul toog ñoom benn jotaay lu dul ne dana leen fàttali pexe seetaane ak kuréel gi mu àndal daana bari lool moom sëriñ bi lu mu leen di wax naan leen na ngeen sax ci fóot seeni xol ak tënk seeni cër ci jamono ji ñu ne ndax fi mu ne nii kat seytaane xam na ne weeru koor yi jege na te bu agsee dañ koy tënk ba nu mën a yàqal benn jullit looloo tax ba fi mu ne day def lépp lu man ngir jëmbat jiwoomu bon woowu ci xoli jullit ñi ngir lim ci jublu mooy jiwoowu man faa sax balaa weeru koor ba bu koor gi ñëwee buddi ko ak fóot seeni xol du leen yomb te bu ngeen fóotut xol yi xéewal yi ñëw ci weeru koor du ci mën a agsi ndax xam ngeen ne bu koor gi ñëwee bunti xéewal ci asamaan sépp dañ koy ubbi te gépp ñaan gub jullit ñaan suñ borom da koy nangu kon na ngeen wattandiku lépp lu ngeen man ci noon bu bon bii di seytaane te na ngeen xam ne it mi ngi taxaw di leen fuglu di wut pose mu mën a jaar ngir jëmbat jiwoom bu bon woowu ci seen xol yi noonu la ko sëriñ bi daa digalee taalibe yi ci weeru baraxlu kon nag ginnaaw ñu ngi ci weer woowu war na ci ñun ñëpp ñu fóotaat suñuy xol nàmmaat suñuy pëseef te gën a feddali suñuy laxasaay ngir waajale ko koor gi yàlla nañu yàlla defal koor gu ñu nangu te defal ko mboolem jullit ci barkeb sëriñ bi